Alikum wali balago Fallou Dieng mooy ñëw salaam kii toog muy Waly Balago Seck ma ne Waly Balago Seck mii toog salaam Waly Balago mii toog man noppi naa man ndax ku wan saa yi la yaram léegi noppi naa man ma daa suñu monsieur bi nga monsieur bi nga maa ngi ko bànn yàgg presse ndax yàgg njël keroog bi amee lu mel nii moo ñëw tudd si ko nga xam sa boppam personnalité yàlla yaa defal la jàmm ma daa waali dafa ñëw ci kilifaam. waaw. waali dafa tabaarakallaahu dafa ñëw ci sëriñam. léegi bi ma yegsee. man Modou Mbaye. dama ne ko waali Seck mii sa moo jàppoon ci sunu loxo. téye ci sa loxo boole. barke yeneen ci bi moo ko def. baax loolu bëgg ko. man koo sagal fu mu nekk ak fu mu nekkul président nga man koo sagal fu mu nekk ak fu mu nekkul nga baax loolu nag bëgg ko te yow kat sa keppaar ci waali sa keppaar ci président fa tabaarakallaahu nga bëgg koo sagal bëgg koo dimbali rek la ndax ku ko xool xam ne tabaarakallaa njabootu Sëriñ Tuubaa gi kafewu leen murit la Cheikh Ibra rek la doyloo mhm. ni mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yow nag gis nga lii def yàlla mi am sa fay ak Serigne Touba yàlla na la fay nii rek nga mën a àndeeg sa nit sagar rek yow di doomu aadama sagal képp nga ci xam barki dee moo njaay dama déparé Paris loué man képp dong ne ci kamay seet da koo ma def diiraan jóge France tabarkalla wuti Belgique rek ba ma yegg see tabarkalla macha allah la nga ma ñëkk a dara fa tabaarakallaaw mu yëg ba mu mat sëkk léegi tabaarakalla macha allah dana gis ci gars yi woo ko mu ñëw fa tabaarakallaaw ak Modou leen ba nu jógee loolu nag tabaarakalla macha allah nga bëgg noo sagal rek bëgg noo dimbali yàlla yàlla guddal sa fan yàlla musal la ci banque bu am fit mu jël la ci fenkat bu am dara ci barke Seydina Muhammad as gor nga nit ko baax nga ku yàlla teral nga te da nga yegg si léegi dugg si dama ne lii mu baal lii mu am moo ko may boppam mu lu waay def boppam yàlla yàlla guddal sa fan moo lu may. Alaaji Ismaïla Mbaye. Maria si may sa biiga may sa biiga maar amati nga sagalati nga askanu ngewal. sagalati nga askanu ngewal. président sagalati nga askanu barki Demba Ndiaye la xew Belgique lépp yëg naa ko ngay dox jàmm di wax lu baax di dimbali doomu aadama yi yàlla yàlla guddal sa fan nga mën lu baax waaye nag dama ni bala ngaa xam ne fi la sa ndey liggéeyal ba tamoon la ginnaaw nii ngay mel en vie doo waaye presse Mbàkke balay sa buri suñ Mbàkke maanaam xaarim ab borom nit ñi bëgg koy fay bi nga bëggee waali fonk waali boo amee ñaar bu baax ne waali lu baax loo am ne waali Marie Assane mooy sa nit a mën a fay prime ba keel tey mu bàyyi lépp teewaayam bi am jot du ñàkk lu mu def du ñàkk fu mu jëm waaye dane man bu dee ñaari minute ñaaram topp ko ca presse Mbàkke ba mu xam ne bëgg gi ma bëgg man yëg naa ko balay sa buri yàlla na yàlla guddal sa fan waaye may wax ni gars yi Marie Assane mooy sa dégg nan ñu ko jàkk te bañ koo piir nii ñu def ak moom noonu rek la président waali yàlla yàlla guddal tàmbali na ñëw naa liggéey bi tàmbali na bu soobee yàlla. ambassadeur. waaw waaw <laughs> waaw. taxawaay. waaw am naa contentement parce que maa ñoom yàgg nañ te euh, wax dëgg yàlla bi ma leen xamee ba léegi ci lu baax rek la ñuy dox ak social. waaw ak social. am benn cas bu nu dugal muy 188 millions ñëpp woo la ci yaakaar la ci tey nga wax ci lan parce que ku la xam-xam la ak social. mais yëgu ma ko woon ma yaa ma ko wax léegi nii. léegi waaw baax na. baax na. yàlla yàlla defal la jeex na incha allah jërëjëf madame. sa sa alal sa ba sa mën a fekkew dara yaa man ci réew mi waa dem si mbooloo yaa bëgg laa wax sama waa ji parce que dem nga taxawal ma ci sama sigi doo ma xaali doo ma xaali ma sama dama tëb sigi tuba yàlla yàlla sama ni ñu boole dama mari bana mari bana mari bana bana ana ana ana tey presse. ah jot bariwul waaye lépp daw di. waaw balaa dara xaw maa ngi tuub ci li ma sol ndax dama doon dem pour sumeeku sang bi dama ñëw balaa soxna si dem di changé wu. sa diggante ak sang ah, sama xarit la sama xarit la ndax sama doom bi mujj moo ko moo ko tudd waaw sama xarit la. d'abord ñu ngi lay féliciter ci bi nga xam ne tey am nga jóge ñëw nga am ndam Sénégal yëpp am ndam ñu lay ñaanal tey nga waxaat lan Sénégal yi bi nga demee nit ñi namoon la mais ñi ngi lay ñaanal nga am ci te ñëw nga am ndam. fa la abassé loo ci waxaat. Wale! Wale!